naka yëngu yi. waaw sant yàlla. naka sant yàlla bu baax a baax ginaaw ma sant yàlla julli si bi di ñuy sama ñaari waajur. pare nga wala. yàgg na duñ paree du tey sax. moment bi looy yëg. non sant rek yaakam di bi ñëw rek yaa ma gën a xam libéré supporters yi waaw. Eh, sa waay ki nga am tàng na de bébis bi. ndaanaan la. Hmm. dama bëgg a nekk ndaanaan. moo tax ma bëgg a bëreeg moom. looy moytu man xale laa man aw ma lu may moytu. bor bi sifflé dina bëre combat bu musta bëre. waaw parce que daa am lu mu wax. Hmm. waaw non loolu damay bàyyi ba jour ba su ma ko daanee ba pare dina xam wax bi lan la doon jëriñ. Hmm. nee na man maa gën a niil ci mbër moo tax ma ne ko dina bëre combat bu musta bëre. loolu loolu la. non man <laughs> man ma xam li nga xam seex ñi gën a niil ci la boo ko wala. <laughs> du yomb suba de. suba. incha allah c'est le Sénégal ki gañ. alors nan nga waajalee combat bi. waaw waaj nañ ko comme ni ñu doon waajee ah comme ni ñu doon préparé en fait waaw ah, li ci des mooy xaar ju ju ñëw rek ñaan yàlla suñu borom yàlla mi may ndam mu may ñu ndam ci kaw jokkeel. d'accord ñu gis ni euh, yaa ngi jëm ci combat bu capital fin saison lañuy nekk mu war a relancer la euh, ci beneen euh, saison bi ñu jëm alors lan ngay wax sa adversaire. c'est vrai parce que saison baa ngi tëj. yaakaar naa le 28 juillet lay tëj ñu ngi ciy ñaan yàlla yegg seeg jàmm rek waaw di des ñu teg ko ci loxo yàlla di ñaan yàlla yàlla mi may ndam mu may ñu ndam ci bis boobu. sóoroo sóoroo ci moom dara. non amul lu muy sóor moom. yee champion la nag ndaanaan la nangul naa ko ay qualité am yëpp ku xam Jokal xam ni ndaanaan la waaw mais nag ndaanaan bu ne ndaanaan lay bëreel. mais mu nekk koo xamante ne yàgg na ci làmb am xam-xam lool bëri tàkkusaan yu ne moom Jokal. nga ne sóoroo ci moom dara. non amul mooy sóor ci moom. nga ni no easy job no pain no gain. doole bi. doole moom yàlla rek ko am. non ku ëpp <laughs> yéen ñaar doole. dama ni doole moom yàlla rek am mais liggéey nañ loo xamante ni du pour sax moom. ma gis la côté musculation macha allah euh, liggéey nga musculation mais est-ce que endurance bi ànd na ak moom. <laughs> yow yaa xool musculation de. Euh, gisuma sax musculation man damaa entraîné ma toll nii ma toll. amul leneen lu may dund lu làmb man làmb rek la bëgg te yaakaar naa ne tey jii waaw kontaan naa ci bis bi quoi ndax su xarit yëpp ñëw nañ ànd dooleel ma xam nga des mooy ñu dugg ci biir def fair play le reste ñu teg ko ci loxo yàlla yàlla mi may ndam yàlla ma yàlla may ndam ci kaw jokkeel jaajëf jërëjëf champion nga ñëw naka waa Tëngéej ñoo ngi ci jàmm ñu ngi nu ñëpp ah, wax nañu ñëpp ñaanal alors combat bi noo ko waajalee comme ni ñu daan waajee ah. avec plus de séeréer rek yokk lépp yokk liggéey bi yëpp. xam nga comme que amuñu droit def erreur. waaw dañoo war a ñëw confirmer lépp lu ñu daan liggéey yokk nañ ko lépp lu ñu daan préparé yokk nañ ko di ñaan suñu borom mi am ndam may ñu ndam lu réy si kaw Feu Rouge incha allah. alors combat bi ak Feu Rouge foo ko teg. wala boo ko daanee wala fu la yóbbu. non làmb moom yii moo fi am da ngay daan dem daanu éñeeku machine yi taxaw. donc bu ñu daanee rek dinañ tegaat beneen pas jëm ci kanam. waaw. Euh, Feu Rouge sa adversaire am na looy sóor ci moom wala. waaw làmb moom xam nga làmb làmb la rek. moom am na lu mu mën ñun tamit am na lu ñu mën mais daal pare nañ pare nañ ci lépp. waaw pare nañ ci lépp lëpp lu mu indi rek incha allah dina ko fekk. da koy xaar wala da nga koy jëli. waaw lépp mën na mën nañ ko jëli mën nañ ko xaar comme mën nañ arrière quoi. Hmm. lépp pare nañ daal pour lépp. na nga bi. waaw lépp lu pare nañ lépp lépp léppay am incha allah. oui delloo ziar. donc Franc naka état physique bi fu mu toll nii. waaw ñu ngi ci ko de oui wax dëgg yàlla ñu ngi ci ko am bu baax a pare nga wala. waaw <laughs> ñun moom ci pare lañ dëgg quoi. Mhm. alors ngay bëri ngeer. mu jiitu la ci làmb. nu fu la combat bi toll. waaw combat bi xam nga combat la comme yeneen combat yu fi jaar rek wax dëgg yàlla moom te ñu ñu ngi ci ko am quoi et puis ñu ngi koy gérer tamit quoi. Mm. am na looy moytu ci sa waay. non amul mooy moytu moom. Mm. war ah, loolu moom <laughs> est moom du ñëw. non sañoo loolu. non bàyyi ma xaar ko mu ñëw. non xaar. non lu tax sañu ma ko xaar xale nga war a prouver. non bàyyi ma xaar ko mu ñëw eh. waaw. waaw mais nag parcelle noo leen di waajalee seen i bés parce que am ngeen ñaari bés yoo xamante ne yu doy waar la nga war a bare le lendemain sa waay war a bëre Modou waaw ñu ngi koy waaje comme ni ñu doon waaje ay yeneen combat yëpp xam nga waaw mais bi moom dafee raw quoi parce que bii trois combat la te incha allah trois yëpp day dugg parcelle quoi mais incha allah bu neexee yàlla. jaajëf Savio te